am na ci falu yoo xamante ni nii da nga koy fal waaye du neex na nga ko bëgg na nga na nga bëggee mu am maanaam na nga bëggee ñu palee la ko maanaam cat dala ciy jiitu waaw waaw léegi nag boo bindee suratul fatiha fatiha bind leen 4444 mhm, mhm. bind xulullaahuma 4444 4444 xulullaa xulullaahuma maalikul mulki nga bind ko 4444 qulillaahu maalikal mulki tuutil mulka mhm. boo ko mënul nga jox ku la ko ah? ko mënul nga jox ku la ko bindal ku la ko ko 4444 mhm. mhm. nga bind suratul baqar boo fa sa yegg fii ko humullah wa saminu alim baat boobu fa sa yegg fii ko humullah wa saminu alim nga baamu ko 4444 àggale saar bi ñëw ci suratu maida boo ñëwee ba ca wallaahu yaxsimuka mina naas nga baamu ko 4444 yeggale saar bi. da nga koy bind. waaw dem ca Alimran boo ñëwee ba ca asbunallahu wa nihmal wakil nga baamu ko 4444 àggale saar bi. kon mhm. ñetti saar yaa ngoo. waaw léegi nga bind falaxi 777 bind naa si 777 wutal ndox yi may wax ndoxu teen ndoxu ndoxu géej. Mhm. ak ndoxu robinet. Mhm. nga boole ko ak parfon misk zaxfaraan maul werd. nga di ko sangoo léegi nag bala nga koo sangoo fexeel ba génn sarax bu diis nga génn ko. billaahi lazi maanaam sarax bu diis mooy lan sarax bu diis maanaam bu la neexee nga jënd tonnu ceeb nga saraxe ko bu la neexee nga jënd nag nga jënd nag nga saraxe ko maanaam fi sa doole toll waaw nga xamante lii nga gën a bëgg nga génne ko mais boo amul yooyu nag boo ko amul nga génne ci sa alal li nga gën a bëgg nga saraxe ko jërëjëf jërëjëf léegi nag nga di ko sangoo boole ko sell alxuraan lu sellul bokku ci nag bokku ca boo hmm. sellee sunu borom dana la dimbali di nga ubbeeku ubbeeku gu la yéem man maa la wax li hmm. loolu ci sangat yi la bokk na ci sangat yi tamit junni faatiha mhm. moom boo ko bindee it moom di ko sangoo sunu borom dana la ubbi ubbi gula yéem junni faatiha junni faatiha waaye nag fexeel ba yow du ànd ak dara da nga koy bind waaw maanaam fexeel yow ba bindkat bi na bëgg rek xam nga léeg sax nga dem ci euh, li may li may reetaan léeg-léeg dangay léeg jekki-jekki nit ñëw bett la jox la alal ju bari ne la ñaanal ma loo ma ñaanal baax na mhm. kooku boo koy defal day mel ni gaynde goo goo goo fekk mu tëdd nga dóor ko mhm. bu jógee ci sa kaw lay dal wallaahi loolu day am mhm. am na ñoo xamante ne nag bu ñëwee dañu naan la euh, comme ni exemple nga ñëw ma ne la ñaari junni nga may fay nga ne ma laay ndax xanaa du yow yaa toogoon ci télé bi di maye di maye secret yi mhm. secret bu ma mayee moom bu la neexee nga def ko waaye boo ma liggéey loo nag ma fay waaw ndax dëgg la wala de dëgg la loolu mooy loolu mooy àdduna waaye nag yow bu fekkee ni man mii liggéey dama am ay employé am ñuy bind am ñuy nangam am ñuy nangam léegi yow ma nga bëgg lii ma wax léegi nii ma bind ko jël ko may la ko mën naa ko waaye nag am na loo xamante ne bu fekkee dañ ko bëgg defal junni nit wala ñaari junni nit da ngay sonn mais ñi nekk bitim réew bëgg këyit këyit bëtë waaw ak ñi nga xam ne ngi sëy seen sëy yaa ngi def kalaj mhm. ak jigéen ñi nga xam ne toog nanu mhm. euh, amuñu borom kër mhm. ak jigéen ñi nga xam ne bu ñu duggee ci sëy bii cat jàpp leen ci ñu génn ci dugg ci bii cat jàpp leen ci ñu dugg ci génn ci dugg mais mbir mbirum sëy sange ko ak xale yi nga xam ni te nañ seeni waajur ñii ña ngay dorogewu mhm. ñii ña ngay tux yàmbaa mhm. ñii gis seen i wayjur gisatuñu leen mhm. xale yi nga xam ne të nañ seen i wayjur xale bu të ak sëy buy karaj-karaji ah, ak jigéen bu bëgg am borom kër ak góor boo xam ni ah, euh, soxna su ma am tàqalikook moom lan ngay ja baaxee jaam ñi pour loolu loolu ñu toog ci waaw léegi soxna si nga xamante ni foo mu euh, maanaam mm,